Déthié Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi maa ngi leen di fay. may fàttali ne yow yaa ngi bokk ci pôle des non alignés. Euh, tey jii ñuy wax ci euh, code bu bees euh, code électoral bu bees bi opposition parlementaire gis nga seen taxawaay nee nañu benn yoon du ci dal yéen mm-hmm. non alignés yi ñu bëggoon a xam seen position ci code ak yeesal yiñ ci andi. waaw dafa def euh, liggéey bu mucc ay ba déggoo ci tomb yu bëree bëri. Mhm. mu am euh, lu toll ci juróomi tomb yoo xam ne bi ñu waxtaanee déggoowuñ ci. Mhm. Euh, ñu jébbaloon ko président de la république pour balaa suñu liggéey bee pare. Mhm. moom mu mën cee àll. waaye li nga xam ne moo ñu njëkk jaaxal mooy liggéey nañu ba pare. te àdduwul ci loolu ñu ko laaj. ba tax na. tomb yooyu nga xam ne jubóowuñ ci jàpp nañ ne ay tomb yu am solo la ci wàllu démocratie. mooy yan ba ñu koy fàttali. mu bokk na ci affaire bulletin unique. Mm-hmm. xam ne day sellal euh, jongante mm-hmm. euh, bokk na ci affaire euh, caution bi. Mm-hmm. bokk na ci ki xam ne moo war a élection yi. parrainage. caution. ak autorité kii bi nga xam ne moom moo war a saytu élection yi. Mhm. tomb yooyu xëy na bariwul waaye tomb yu am am importance la yoo xam ne su fekkee ne benn jéego defuñu ko ci. Mhm. dana am lu bari loo xam ne dana ko xajamal ci liggéey bi nga xam ne def nañu ko. d'accord nun bi nga xamee ne code électoral bi dégg nañu ne jóbbal nañu ko. Euh, assemblée nationale. Mhm. te àdduwuñu ci tomb yooyu ñu am ci ak jaaxal ak mbetteel. ndax dañoo jàppoon ne. président de la république danañu gunge ci jéego yi ñu def ngir euh, gën a dëgëral suñu démocratie mm-hmm. mais surtout assemblée nationale aussi euh, jàpp ci liggéey boobu waaye li nga xam ne moom la ñu jébal nationale mm-hmm. am na ay mbir yu bëri yoo xam ne euh, bu ci nekk dana gën a taaral suñu suñu code électoral ak suñu démocratie. kon daal ci dégg-dégg yéen non aligné yi mën nañ jàpp ne position euh, bi daal benn la. bon euh, xamuma lan exactement lan mooy position opposition. parce que ñoom it am na ay article wala sax am na yi nga xam ne nee doyu seen xel te li ni mel naxasal na tamit li jëm ci dialogue politique bi. bon jotuma déglu euh, position opposition bi li ñu mën a jàpp rek mooy. Uh-huh. li nga xam ne moom la seen woon ci ñu war a Euh, arbitré ci yi nga xam ne déggoowuñ ci mhm. loolu amuñu ko mhm. te itam euh, doon na lu ñu bett ndax jàppoon nañu ne mhm. liggéey bu mu ay bi nga xam ne euh, commission politique bi def na ko amul lenn lu war a mën a ñëw pour pour xajamal ko te ñàkk régler problème yooyu dana bokk ci li nga xam ne dana am lu mu wàññi bu baax a baax ci euh, li nga xam ne moom la commission politique bi de nga tudd ko sànq muy L 31 ak L 32 ñaari article yi nga xam ne jàpp nañ ne dafa salfaañoo euh, wala sax tërewul yoon euh, yéen tamit lan moo ci seen xalaat. waaw noonu suñu xalaat depuis concertation 2018 yi suñu xalaat moo di ne nit ki bu defee dara ba ñu tëj ko. Mm-hmm. société bi dafa war a def fexe nit kooku diir bi ñu diir bi bi mu tëdd euh, ñu téye ko ñu kaso. Mm-hmm. bu génnee dañoo war a def ay fexe pour duggalaat ko ci société bi mu yem ak ñëpp. dëgg la bu fekkee ne mooy principe la de respect des droits humains. Mm-hmm. ñaari articles yooyu L trente et ak trente deux. Mm-hmm. dañoo wax ne bu fekkee ne xas nañ laa condamné ci yenn peine yi. sa giiru dund doo mën a bokk ci élection. xam nga loolu mooy beddi nit définitivement. moo tax ñun ñu jàpp ne ni ko évaluateurs yi waxee dañoo war a euh, dindi tere boobu nga xam ne dañ koo tere définitive ba nga xam ne nit ki bu tëddee li mu war a tëdd ba pare mm-hmm. bu fekkee ne euh, bokkam ci élection yi dañ koy aj dafa war am diir bu boo xam ne diir bu bu leer la boo xam ne diir boobu bu jeexee mu mën a duggaat ci fichier électoral bi loolu moom moo dëppoo ak droits kon daal yéen it euh, ci jàngat jàpp ngeen ne ñaari at yiñ fi nekk di wax dialogue politique dialogue euh, national euh, perte temps la. non pas du tout pas du tout parce que tey bu fekkee ne xool nga lu ëpp ñaar fukki tomb ak juróom yi nga xam ne jubboon ci. Mm-hmm. ci juboo boobu am na ci tomb yoo xam ne dafa war a dugg ci ko électoral am na yeneen yoo xam ne affaire démocratie bi nu muy doxee ak yooyu ci la nekk kooku yeneen luwaa lay ay accords yu ama am solo la waaye dama laa wax léegi ne mhm. ñaar fukki accord ak juróom yooyu wala am nañu solo lool waaye juróomi tomb yi nga xam ne déggoowuñu ci mhm. yooyu tomb yi xam dañoo am solo ci dëgëral démocratie ak dëgëral euh, déggoo bi ci war a am ci biir classe politique bi mhm. moo tax ma ne la su fekkee ne loolu saafara saafarawuñu ko danañu liggéey liggéey nañu liggéey bu mucc ay mais mbir moomu dana ñëw xajamal liggéey bi d'accord kon tey euh, li woor moom mooy commission politique bi moom gàcce ngaalaama li mu waroon def def na ko def na ko ci anam yu sell yu leer li des kay mooy nun arbitrage lañ doon xaar arbitrage boobu moom la ñu gisul kon mën nañoo wax déception am na ci waaw mbetteel am na ci mbetteel mbetteel am na ci parce que mhm. seeni wuñu woon loolu le premier juillet mhm. euh, commission politique bi bind na président de la république ne ko juróomi tomb déggoo wuñu ci dañoo bëgg suñu séminaire bi balaa jeex. Mhm. nga wax nu lan moo ci sa taxawaay su ko defee ñu xool sa taxawaay boobu naka lañ koy mën a duggale ci code électoral bi. comme ni mu ko diglee woon. ba fi ñu ba fii ñu toll te. Mhm. jotaguñu tontu boobu. ñu jëm ci jotuñu tontu bi ba assemblée nationale ngi wote projet de loi bi. Mhm. ñu waajal élection locale yi jamono ji euh, ñu ngi ci wàccaay yi gis nga ko muy code électoral bi buñ ci paree dem ci inscription yi euh, tey ndax délai yi jàpp nga ne dina euh, dinañu nekk à temps def li ñuy def yëpp ci révision bi ba mën a amal ay élection yu mucc ay waaw bu dee ci wàllu délai moom. ñu ngi ci condition yu normal yoo xam ne mu organiser élection yi ci loo xam ne lii benn jafe-jafe du ci am mhm. ndax bu ñu bu ñu wutee euh, euh, électoral bi mhm. au plus tard le vingt trois janvier euh, pardon le vingt trois juillet mhm. président war na loi bi bu ko promulguer immédiatement mën naa jël pour révision exceptionnelle des listes Euh, à partir de bu ñu defee par exemple dañu jàpp ne supposons bu dee deux mois lay desati moom rek mooy euh, ban période la ñuy fixer caution bi fixer caution bi et puis nit ñi déposer seen liste à quatre vingt cinq jours des élections mm-hmm. donc tâche yi des amul benn lay boo xam ne war naa mën a tax par exemple ñu wax ne dana jafe pour ñu organiser élections yi loolu moom euh, élection yi moom le vingt trois janvier kon war day day day nekk war na mën a nekk. Mm, day war a nekk. Euh, tey jii gis nañu jeu des alliances maanaam opposition bi ñoom ñoo ngi def ay jéego di wax ay coalition wax leneen ak leneen maanaam ñoo ngi dessiner ñoom tracer seen route euh, jëm ci local yi euh, tey noonu aligné yi nan ngeen taxawee. waaw xam nga élection locale ni mu tudd élection locale la. Mm-hmm. alliance yooyu ngay wax ak euh, ci biir parti parce que xam nga euh, ñu ngi wax non aligné ak euh, leneen mhm. majorité ak opposition mhm. dans le cadre du dialogue politique mhm. mais tey bu fekkee ne par exemple nekkuloo mouvance présidentielle il est évident que ñi la gën a ñi ñi ñi nga nekk fi nga nekk mooy opposition ci contexte boobu d'ailleurs là en deux mille dix-neuf par exemple ñun au niveau de la CDR Fonk Sa Kàddu ak beaucoup de partis mhm. euh, non alignés mhm. euh, jàppale woon candidat Idrissa mhm. bon donc euh, fii ñu jëm aussi c'est le même format qui va avoir lieu des coalitions yi dañuy am en fonction d'un certain nombre de critères pour définir ay profil xam bërëb bu ci nekk euh, kan lañ fay war a mën a présenter ndegem maire bi ak président conseil départemental au suffrage universel bi rek lañ koy ki mais euh, coalition yi euh, ñu ngi ci waxtaan ci cadre bu ubbeeku nag parti yëpp yi nga xam ne Euh, ñu ngi ci biir euh, opposition bi. Mhm. bu xanaa nag ay weer yi ñu dëgmal dinañu wax ay waxi campagne électorale mu doon jamono ji nga xam ne ñoo ngi ci benn contexte euh, bu délicat muy pandémie bi jamono ji Sénégal gis nga vague yi maanaam situation bi tey ji ci ñaax nan nga jàppee ne campagne bi say morom ñi nekk ci politique bi noonu lañ war a jëfandikoo ngir ñu bàyyi xel ci mbas mi fi ne. waaw mbas mi day day fi moom euh, bët bu set day gën a jaaxal nit ñi. Mm. nuy ñaan yàlla mu jële ko fi ci lu mu gën a gaawe mm-hmm. te musal ñu aar ñu ñun ñëpp. li ci des mooy ndegem mu ngi fi nag il faut que acteurs politiques yi liggéey ak responsabilité. Mm-hmm. parce que xam nga euh, campagne nit ñi mën nañ koo def. Mm-hmm. te euh, xëy na nga xam ne contexte bi changé na. nga changé stratégie pour sa campagne. te loolu jàpp nga ne possible na Sénégal. Euh, possible na possible. en réalité. xumbal mhm. euh, yi ñuy def yépp le plus souvent bu résultat yi feeñee résultat yi du dëppoo ak xumbaare yi nga doon gis. dëgg loolu euh, lu am la. ngay campagne de mobiliser parce que am nga ay moyens. xam nga tey pour nga dajale nit ñi lu lu yomb la. Mm-hmm. boo waxee nit ñi ne par exemple euh, euh, ku dem ñu jox la nangam. Mm-hmm. bon mën nga mën nga mobiliser mais euh, wala nga nga def animation boo xam ne curiosité dana tax mbooloo ñëw. Mm-hmm. mbooloo mën naa bari mais mbooloo ma la ci ànd ak yow mën naa doon lu tuuti tuuti. élection yi ci demoon en deux mille bi président Abdou di daanu. ak 2012 euh, Ablaye Wade di di di perte nguur gi. Mm-hmm. war naa yee ku nekk xam ne nit ki mën naa bari xaalis di ko joxe mën ngaa bari ay moyens di dajale booloo mm-hmm. te bu résultat yi ñëwee nga gis leneen ndegam loolu am na nag te maa ngi fi mm-hmm. ku nekk dangaa war a xool xam ne am na beneen doxalin boo xam ne war naa mën a nekk ñu jéem a xool doxalin boobu moytu le maximum possible mm-hmm. yenn rassemblement yi mais à tous les cas quelle que soit la situation aussi ak démarche bu ñu mën a def nit ñi respecter les mesures barrières bu fekkoon ne kuy dem béréb sàngam allo mm-hmm, mm-hmm. waaw man la ku defoon ku fekkoon ne kuy organiser rassemblement bu mën a doon oui kuy ñëw na na takk maskam te nit ñi respecter yenn distance yi xëy na dana mën a nekk mais xam nga loolu itam lu jafe la dina jafe de lu jafe-jafe la. moo tax mhm. daal il nit ñi euh, xam ne mbas mi mu ngi fi ñu sóoraale ko ci lépp bépp xeetu campagne bu ñuy def. d'accord monsieur Faye Déthié Faye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal merci beaucoup. Mhm. Euh, di leen gërëm di leen sant. d'accord ci seen liggéey ak seen taxawaay. d'accord.